ñeenti mbir laa boole ci kaawu bu Gazali bi ñeent quatre choses moom laa boole ci kaa bi dama ko yërëm bi mu yuuxoo ne woy yàqu naa woy dama am njaboot sama xel na yar ci njaboot gi sama yaram daw bi ci topp dama koo jéppi dama ko mere lool bi ci topp dama am gàcce en tant que sénégalais di xoolaan sa njiitu réew maanaam ñi diriger réew mi di sàcc alalu réew mi di trafiquer ay faux de di trafiquer ay passeport ay visa di dougal ay xaalisu falsi sur réew mi ay dollars ak ay euros golo bay bon dundee cela veut dire les riches vont continuer à être riches les pauvres vont continuer à être pauvres Je mi ci hôpital yi ci garap, médecin amuñu garab médecins yi fayuñ la gendarmerie fayuñ leen militaires yi fayuñ leen salaire u fii ci Europe sax moo ëpp salaire u ministre fële ca réew ma fayuñu kenn fépp a ngi sooxe dangay ngay feebar bay nekk ci diggante dundal ak dee balaa ñu lay laal di laaj say mbokk kan la àndal. ana kan mooy dagg ticket hôpital bi sa jabar nekk dans ci état war a am doom ñuy laaj ci ana jëkkër ji fan la nekk nit ñi di ñàkk seen bakkan ci hôpital yi réew mi di sooxe. Sénégal bokku ci les pays les plus pauvres du monde dëkk bi gën a salte ci àdduna bi dëkk bi gën a ñàkk jàng mu doy ci àdduna bi maître yu doy ci àdduna bi fayuñu kenn ci gàttal ñépp di sooxe les hommes comme ça maanaam ñii ñooy ñu riis ñi toog ci télévision yi lëmbe àdduna bi yor seeni làmmiñ di palalali kii ku ko seetaan muy wax nga yaakaar ne kii <laughs> non l'apparence fait la trompeuse kii lu mu fi yàkkul Sonko ak lu mu fi yàkkul journaliste bi amee ay dara ba di koy jiiñ naankatu deretu nit yow naankatu deretu réew xam nga ne phobie dafa bokk ci li wàccee économie dëkk te ñu jàng xam nañ li may wax Sénégal di gën di sooxe yéen ngeen di gën di riche C'est une de voyager ci ay jet privé ngeen di maye ay 8 millions 7 millions c'est une di appartement di de Sénégal di gën di C'est une ba le képp kuy sénégalais rek am nga gàcc vidéo la rek mu way rek am nga personnage vraiment tu m'as déçu vraiment man personnellement tu m'as déçu man am naa gàcce trop am naa lu ma naqari trop